ñaari at ñaari at. ñaari man ku ne xam na ni pulaaram ganaar bu mag laa yor ci Cambérène gii. man yaram ganaar mooy sama métier yaram petax. ndax damaa judd ci ganaar màgg ci xam gi. ma laaj la rek question la. dan la montel seen. dan ma ndax dan laa may ci pour nga wax. donc donc donc ma sant ginnaaw. waaw. fay ko xaalisam. Mhm. atte bor. Mhm. fay fay. déglu mhm. boo ko fayu. ñu lay tëj. daal boobu bu la nit yorelee. lànk te ticc rek bañ laa fay buñ ko fi indee bu soobee yàlla bu danañ ko lijjanti ba dina la delloo li nga moomoon. boo fi indeeti nit nag du nii nga ko indee. nu nu ko indee. jóge fa lekk sa xër sa xër si tànqal nit ñi mënu ne. Ah, ah.